moo ko ñëw moo ma ñëwal semis beeg panneau bi yëpp moo ko ñëw Mor Sow vraiment man defoon naa ni sénégalais yi aayuñu ci semis cuune uh-huh. lañ ci mais uh-huh. vraiment professionnel la parce que dama bi mu ñëwee dama ko diis sama soxla daal di koy wax ne ko man de wax dëgg yàlla semis yi booy di génn yëpp léegi baaxut mu daal di may mesurer ñawal ma chemise moor ñu ngi lay sant di la gërëm di wax ni yàlla na loxo bi nuñ ko xeeti wér wér mhm. vraiment xam-xam bi gën fi nekk mais mhm. vraiment sénégalais yi ay liggéeykat lañ mhm. moor vraiment ñu ngi kontaan ci yow moor moom it ñu ngi koy nuyu ak soxnaam soxna Awa muy ñu baax vraiment ñu ngi leen di jaajëfal bu baax te di leen nuyu ay ca dañuy dem régi dellu siwaat Omar bun Xataab Gueye ay ca ajaratu mbokk yi jërë ngeen jëf euh, tey rek ñu am fi gan di imam Moussa Dembélé euh, bokk rek euh, ci jamaatu ansaaru diin yàpp kuréel gu yaatu goo xam ne rek ñoom juddu yonent bi lan fa seen màggal ëllëg incha allah le 20 avril euh, ñooñu nag ban ko dalee def yàgg na waaye atum ren ji dañ ci ànd ak Walfajri moom nag Imam Moussa moom mooy président département bu Géejawaay jëm ci kuréel boobu waaye tent au niveau de Dakar mooy président commission communication et culturelle bu coordination bi am ci taxawaay bu am solo am na tamit ñu mu ci àndal waaye imam moom moo toog ci plateau bi imam balaa ñuy dugg ci waxtaan bi rek ñu bàyyi la nga nuyoo. alhamdulilah wasalaatu mhm. wasalaamu ala illa billah yaa himata cheikhi wahduri lana bi haadha almahdari wal taatifi bi nazratin taati lana bi zafar mbokk jullit ñi ñu ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di nuyu ñi nga xam ne ñoom laa seq ak bi mhm. euh, di nuyu suñu kilifa moom laay njëkk nuyu mhm. njëkk nuyu mooy euh, Sa Ndiogou di ko nuyu bu baax a baax a baax mm. waaye ki ma dalal tamit euh, maa ngi koy nuyu muy euh, Omar Bun Xataab mm. ñu ngi koy nuyu bu baax soxna si Betty ñu ngi leen nuyu bu baax ñu ngi nuyu ma jigéen mm-hmm. ñu ngi leen di nuyu bu baax waaye ñu ngi nuyu mbooleem euh, spectateur yëpp ñu ngi leen di nuyu di gërëm tamit dëgg-dëgg waa Walfadjri ci invitation bi ñuy defal di mm-hmm. gërëm sama mbooloo mi ma àndal di ñaan mm-hmm. yàlla yàlla yàlla defal ñu taw tawfeex ci jotaay bi salaamaaleykum imam euh, ëllëk ngeen am loo leen sumb fas na ci ànd ak Walfadjri mhm. mooy gàmmu jëppal 20 mhm. avril mhm. méngoo ak bis bi yonent bi juddoo lu tax ngeen taamu bisu 20 avril bi alors que liñ tàmm ci senegal mooy gàmmu lan daan dégg ñuy màggal juddu yonent bi pourquoi 20 avril ak gàmmu jëppal waaw balaa may euh, dellu ci sa laajte bi ma am tuuti rek lu ma bëgg euh, leeral gannaaw bi ñu nuyoo suñu xalifa général cheikh euh, Mouhamed Mahi euh, Ibrahima ñas mhm. mhm. di ko ñaanal yàlla yàlla gën ko yàggal taxawaayam. ci liggéey bu am solo bu muy liggéey ci réew mi ak ci àdduna bi yëpp. ñu ngi koy ñaanal yàlla waaye di ñaanal yàlla suñu. représentant bi nga xam ne suñu sëriñ la moo représenté xalifa fii ci Dakar moo Cheikh Mouhamed Amine Ibrahima Niass mhm. waaye du ñu fàtte suñu imaamul akbar bi nga xam ne mooy Cheikh euh, euh, Cheikh Tijane Aliou Cissé mhm. ñoom ñu ngi leen di ziar ñu ngi leen di nuyu baax waaye ñuy nuyu ki nga xam ne daanaka moo ñu fi yebal mhm. mooy suñu président jamiyatu ansaruddin bu national Cheikh Mounhamina Ibrahima ñas kooku nga xam ne tey moom mooy président bu jamiyatu ansaruddin bu euh, national jamiyatu ansaruddin boobu su ma ci bëggee wax il faut ma wax ci tuuti rek balaa may ñëw sa question. ñëwul bismillah ndax jamiyatu ansaaru diin Cheikh Ibrahima Niass radiallahu anhu ci jamonoy 1940 yi la ko sosoon. Baye ah Baye. Mhm. moom la Cheikh Ibrahima Niass Baye. ci jamono yooyu la ko sosoon kon mu nekk lu yàgg. Mhm. ci loolu nag muy dem ci 1960 yàlla def mu am ci in ci veille indépendance mu am euh, récépissé. Mhm. kon lu yàgg la lan moo waraloon bitu Ansaarudin mooy mu boole mbooleem taalibe yi fu ñu mën a nekk. ñu nekk ci benn buum ngir lan ñuy gën a mën a liggéeyal lislaam ñuy gën a liggéeyal diine bi di dimbalante seen biir di dimbale islam bi yëpp di dimbale mbokku jullit ñi loolu moo waraloon jamiyatu ansaaru diin ci loolu nag jamiyatu ansaaru diin di màgg di dem di màgg ba xalifaa mi di ko continuer di ko continuer ba mu àgg ci loxo suñu kii euh, suñu sëriñ cheikh euh, Tidiane Ibrahima Niass mi génn àdduna li yàggul li ñu koy ñaan yàlla yàlla yàlla dolli leeram ci loolu nag moom mu gën ko yaatal ba ci mu àgg ci mbooleem département yi mhm. ci loolu moo waral nag ñu am ci biir dakaar ñu am ci quatre départements yi mhm. mu am euh, benn coordination pour buy coordonner quatre départements yi nga xam ne ñoo seq ngànk Ansaarud-Din bu région de Dakar mhm. muy département Guédiawaye mi nga xam ne man mii toog ak yéen maa ko jiite di Moussa waaye mu am département bu Rufisque Cheikh Aliou Lopez moo ko jiite mu am département dakaar fii Cheikh Barham Seck moo ko jiite ak oustaz Meng bi nga xam ne moo nekk euh, ci Pikine moo ko jiite. Mhm. lii nag ñoo yore coordination bu jamiyatu ansaaru din bu région de Dakar. Mhm. ñoom nag ci seen liggéey ngir boole taalibe ñu doon benn. continuer liggéey Maulana Cheikh Ibrahima ñoom tey ñoo téye gàmmu jëppal bi ngay wax muy gàmmu jëppal bi nga xam ne Baye moo ko sosoon ñu war ko taxawal te mu war a tombeek at bi ren suba 20 avril. Mhm. ci loolu nag euh, gàmmu ñu ñëpp xam nañ ne yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam juddoom kenn laam laa lu ñu war a màggal la mhm. ndax ay leçon lañ ci war a tiire mhm. euh, ndax yonent yàlla muhammad sallallahu woykat bépp ko ne wulidal huda fal kainaatu diya mhm. wa fammu zamani tabassumun wa sana mooy yonent yàlla muhammad sallallahu bi mu juddoo rek la adduna yëpp leer leer ci njub leer ci mbaax leer ci jikko yu kawe leer ci bëggante yooyu yëpp ci judd yonent yàlla moo xam ne sax kon war nañu di fàttaliku judd googu Sénégal nag am nañu habitude bi nga xam ne ñu ngi sant suñu mag ñi mhm. depuis lu yàgg ñu yëg ñuy màggal judd yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci kër yëpp ci mhm. gox yëpp mhm. waaye judd yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nii nga xam ne àdduna bi ni muy demee dafa am li nga xam ne mooy euh, lunaire mu am solaire yaa ngi may dégg léegi nag yonent yàlla Muhammad salaam si ci juddu juddoom ci rabiul awwal mhm. bi nga xam ne Sénégal yi moom la lañu màggal waaye nag ci li ñuy wax ci weeru tubaab yi mhm. natt nañ ko mu tolloog 20 avril 20 avril waaw 571 mhm. la yonent bi judd woon ci ci weeru tubaab yi ñu koy nattee ci judd ci juddu Isaa loolu nag moo tax bàyyi mu ne nag bàyyi mbëggeelam ci yonent yàlla Muhammad salaam mu ne màggal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci weeru gàmm bi ñu ko xamee mu mu mu gàmmuwaat mu ne waaye loolu dara doyu ko ci mooy lu dul tamit mu màggalaat yonent yàlla Muhammad sa juddoom ci weeru grocromen bi nga xam ne mooy 20 avril. c'est bien 63 ba léegi mi ngi koy def kon màggal bi ñuy màggal ëllëg euh, pour équivoque boobu ñu dindi ko dafa am solo ci leeral parce que Sénégal dafa naqadee waxee. Mm-hmm. mooy màggal 20 avril bi. Mm-hmm. daqul màggal ya nga ko doon màggal. Mm-hmm. loolu bëgg naa nga leeral. waaw waaw parce que chaque at. dañu màggal. isna achara rabil awal fukki fan ak ñaar ci weeru gàmmu mhm. dañu màggal judd yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam mhm. kër yëpp di ko màggal comme ni ma la ko waxee waaye màggal googu tamit nag dafa mel ni nit ñi dañoo xaw a fàtte juddoom tamit ci weeru tubaab yi mhm. léegi nag bàyyi indiwaat ko pour dellowaat xelu nit ñi xam ne ni ñu ko war a màggalee ci ci weeru nit ñu ñuul ñi ni ñu koy waxee noonu lañ ko war a màggalee tamit ci weeru tubaab yi nga xam ne ne mu ngi tolloog 20 avril ndax nit ñëpp xam ne ne 20 avril boobu waruñu si topp affaire caaxaan rek comme ni ñu koy waxee. Euh, euh, poison d'avril ki la juddu parce que pour euh, un peu caricaturer le prophète. paraît-il que ci leen créé poison d'avril pour wax ni sax juddu goog ñuy wax sax. ay léeboon ak ay léppoon la nanga baal ci kàddu gi poisson d'avril foofu la jógee ci xibaar yi ñu am mm-hmm. moo tax nag Maolana bàyyi nag bëgg a leen ni bis boobu dëgg la dëgg la caaxaan bi ngeen avril la dañoo war a ñëpp dañoo war a branché wu seen xel xam ne bés boobu muy bés boobu di fan yooyu weer wi lépp weeru ngëneel la ndax mooy weeru gi nga xam ne ci la yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam juddoo waruñu si ñu si dem di côté caaxaan mais dañ ci war a delluwaat ci njàngalem yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam teguwaat ci yoon wi nga xam ne moom la ñu yonent yàlla wa sallam teg jàngataat ay wax jikkoy ñu wax jikkoy yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam na kenn bu fa jógee rek mun ma jox ma jox saa ji nga saa doon saay saay da ngay xool fi poison d'Abdul juddee c'est juste pour rek ko tuuti bu may bi saay saay lañ mës a doon la ñuy doon ba faaw mm-hmm. ñooñu ñooñu nga xam ni ñooy noonu euh, di wax ni nag. Mhm. macha allah parce que le 20 avril bii nga xamante ni moom nga wax ni man euh, keroog ba ma Oustaz waxee ne ma mooy kii man xaw ma ko woon man. maa koy soo a yëg vraiment mu nekk loo xamante ni. Mhm. Euh, lu am solo la vraiment parce que tamit xam naa ne sénégalais yu bari tamit. Mhm. danañ ci mel ni man ci mbir moom. mais gàmm gi. naka lay demee ndax parce que gàmm bëri yële moom dinañ defar ay cereek yooyu ki gàmm gi moom naka lay demee ba yooyu tamit dina ci am parce que tamit jàng yi waaye mais mm-hmm. bernde yi mm-hmm. dana ci am bu baaxam waaw bernde yi dana ci am mais ci façon bi nga xam ne moom la réew mi nekk ren ah. parce que xam gis nañu ñëpp feebar bi covid bi moo tax moo tax moo tax gàmm gi duñ ko def sax euh, gàmmu ñëpp daje gàmmu seeka waa seeka man ah. yi est-ce que léegi tamit yéen mm-hmm. jotut tamit ñu soppiwaat bi di parce que léegi jënd nañ lépp amul dara làmb sax am na. waaw waaw gisoo dajaloo yi nga xam ne moom la nit ñi di dajaloo. mitin yaa ngi am. Hmm. ñaata mitin nga fi gis. Hmm. donc je pense que ni gàmm war nañu mën a nekk nag gàmm comme ni nga xam ne noonu lañ daan gàmmoo. waaw noonu lañ koy defee. waaw mais. waaw lu lu li indi problème bi mooy. Hmm. gàmm dañ koy préparer. surtout gàmmu jëppal gàmmu baay bi. dañ koy préparer. Hmm. ñun ñun rek ah, ci niveau coordination bu département bi lu ne tolloog ñeenti weer la ñuy hmm. préparer gàmmu gi. ren dalee na bett. ren nag bi ñu bàyyi manifestation yi. Hmm. boobu fekk c'est trop tard. mais nag duñ ko bàyyi mu niil ndax man dama gëm ne ne ligne bi ñu def sax li ñu am ci ci ay plateau ci ay conférence duñ ko am sax ci gàmmu ko ci gàmmu bu ñu daje woon monde virtuel waaw monde virtuel bi ñu def daf ñu permettre ñu am internet bi daal ngeen di bi ak ci bon partenariat avec euh, Walfadjri ñu leen di gërëm bu baax a baax a loolu dinañ ci dellu si mais pour que mm. mun nga waaw man euh, ci kii bi lay laaj sax euh, parce que nag li Sanjoogu wax bari na ci moroom mm. man mii beneen laaj ci mm-hmm. muy loo xamante ni ñun dañ defe ne woon jour yi nga xamante ni moom la ñu jàpp gàmmu mm-hmm. bu loolu mooy ganeb mm-hmm. àdduna yonent bi sallallahu alayhi wa kon ñu xamee ko ci sant yàlla mais mooy différence su gàmm googu. Mhm. ak euh, yéen 20 20 20 avril bi ngeen mhm. jàpp. muy mhm. euh, ganek àddinaam. lu tax ñuy ñuy def gàmm boobu kon. 20 20 avril bi. 20 avril bi mooy ganek yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mais ñëpp dañu taa dañu jàppoon ni guddi gàmm bi Sénégal xam. ñëpp di ko gàmm lool lañ jàppoon day baax aussi ngeen gindi ñu ci tuuti. xam nga juddu boo gis rek. dafay tolloog euh, dafa am tolloog juddu yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi nga xam ne. ñu ngi koy natt ci weeru nit ñu ñuul ñi maanaam ñu wax weeru olof weeru olof waaye nag dafay tombe tamit ak weeru tubaab ndax ñooy ànd mm-hmm. ni jant bi ak weer wi di àndee moo tax dafay ànd ak tamit ñaari judd yëpp dañu ànd ñun nag Sénégal dañ ko habitué wul woon dañ ko xamul woon mais ni ñu màggalee juddugale gale mm. noonu la ñu màggalee judd gi mm. léegi nag seen bàyyi nag ci pour gën a révolu jox valeur si yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dëgg-dëgg génnee valeuram ba nit ñi mën mm. ko jëg jëriñoo mu ne duma bàyyi rek mu nekk ci weeru olof yi comme ni ñu koy waxee wala weeru ni ñu ñuul ñi comme ni ñu koy waxee calendrier musulman calendrier musulman ci ko yàgg def mais moom ci calendrier tubaab bi calendrier tubaab bi tamit danaa ko fa dugal ah, ba nit ñi xam ne tamit avril boobu mooy judd yonent yàlla mu wax nii mooy kii mooy comme taala kas rajat la judd bisu mm. mais xam nga dafa amaat beneen date bu kii bi ñëwaatee affaire kii jour kii dootu doo jour kas rajat day nekk lii jour kii bi nekk weer yow sa juddu tey ci ci weeru olof am na lu mu tolloog ci olof wax nga dëgg léegi léegi li may wax rek mooy ngeen tëral benn programme mhm. yaa ngi wax ni eh, virtuel la en mhm. ligne la mhm. loolu yëpp mais du ñëpp ñoo am accès ci ci ci internet bi donc ñàkkul ni kon yeneen taalibe yi wala yeneen jullit yi nga xamante ni bëgg nañu eh, xam gàmm googu nu muy tëddee ban programme ngeen leen tëralal aussi waaw ba balaa may dugg ci wala wal fajri daf fi jàll waaw balaa may dugg ci programme bi sax danaa wax ne ne Euh, dafa jar li nga li nga laajte dafa am solo ndax programme bi dafa riche. Mm-hmm. Euh, ndax dafa am ay conférenciers yi nga xam ne. ay borom conf ñu mën conférence dimensionnel la ñu mm-hmm. ñooñu nga xam ne dëgg-dëgg yàlla may na ñu mën leen teg ci plateau nit ñi di leen gis wala di leen seetaan. Mm-hmm. loolu dafa jar dëgg-dëgg. dafa jaraw feeñal ba ndax nit ñu mën a jëriñoo moo tax nag yemuñu rek di ko def ci internet bi wala ci kii nu mu tëdd ci chaîne YouTube yi mhm. daanaka ci chaîne YouTube yëpp yu nekk ci euh, pays Maulana Cheikh Ibrahima mhm. ñoom ñëpp jël nañu engagement dañ koy teg mhm. li ko dalee suba a vingt deux heures trente ba heure bu muy jeex vingt deux kii du matin wala une heure du matin waaye nag ñuy bëgguñu mu yem foofu seet nañu xam nañ ne dëgg-dëgg nit ñi tamit dañu bëgg a toog mag ñeeg ñi sax dañu bëgg a toog seen saal surtout koor gi dañu bëgg a toog seen saal jàkkaarloog télé yi mm-hmm. moo tax ñu ne nag ñun suñu partenaire. Ah. mooy Walfadjri. ah day jàll fii dafay daf fiy jàll. suba mm-hmm. à 22h30. Mm-hmm. ba 1h euh, du matin wala ba. gàmmu la daal gàmmu la. 22h30 daal ba xaaju guddi ba guddi gi. Mm-hmm. ku toog sa saal. di nga toog di ko seetaan li nga ci bëgg am yëpp di nga ko am di nga fekk fa ay conférences yi nga xam ne tànn nañu ñeenti conférences yi. ñeenti conférences yi nga xam ne kenn ki suñu sëriñ la Cheikh. Euh, mun xam naa Ibrahima Niass waxoon naa ko léegi mooy président jamiyat ansaaru diin mooy def conférence te thème bi ñu ko jox mhm. dafa ànd ak jamono ji ndax dañ ko jox jamono ji nga xam ne ñu ngi dund crise bu metti yi crise yëpp ci ñaari fànn yi mhm. crise des valeurs ak mhm. crise économie tax na nit ñi jaxasoon ne xamatuñ fu ñu jublu te pour temps yonent bi am na si solution Mm-hmm. moom lañ ko jox mu wax ñu ban lan mooy solution lan la yonent bi joxe pour comme solution pour ñu mun ñu mën a delluwaat génn ci kini crise yëpp kini crise sanitaire bi nga xam ne ah. mu ngi ñu sonal na adduna bi yëpp yooyu yëpp yonent bi joxe na si ay solution yi nga xam ne suñ si jaaree rek danañu mën a tegu ci yoon li ñuy jooy yëpp ci jafe-jafe yëpp mën a tegu ci yoon moo koy moom moo koy def mooy moom mooy temu général bu gàmmu gi mm-hmm. su ko defee am nañu suñu oustaz bi nga xam ne Dakar lañ ko jëlee muy oustaz Ali Ndaw mm-hmm. ñu ñëpp xam xam-xamam naw xam-xamam moom it dana waxtaan ci lan dana waxtaan lan mooy njàngale Cheikh Ibrahima ci ndaw ñi ndax tey ndaw ñi war nañ leen wutaala war nañ leen won ay seeni référence war nañu xam ne kat mag ñi liñ fi bàyyi woon mënuñu jël jëm feneen fu dul jaar ci njàngale mag te Cheikh Ibrahima wax na ci li nga xam ne mooy ndaw ñi mm-hmm. ni ñu war a dundee ni ñu war a nekkee pour seen nekkin mën a baax teg na ci ay ay ay jàngale yu mag si Oustaz Aliou Ndao dinañu si leeralal Oustaz Babacar Niang nga xam ne ñëpp xam nañ conférencier bu mag la conférencier mhm. bu mag la mhm. moom it dana am thème bi nga xam ne dana ko dana ko traité mhm. euh, suñu sëriñ ki nga xam ne mooy porte parole kër gi mooy Cheikh Mahi Alioune Cissé mooy porte parole xadara Cheikh Ibrahima ñas Saydu bi moom si boppam dana def conférence bi nga xam ne dëgg-dëgg dana waxtaan ci Cheikh Ibrahima ak njàngaleem kon loolu nga gis ne yooyu ñu waxtaankat yooyu dafa laaj dëgg-dëgg nit ñi seetaan ko te bu fekkonte ne gàmmu yi ngeen di wax la pour nga am loolu ndax jotaay ni muy xatee doo ko mën a am mm-hmm. kon lii sens la pour nit ñi gën a mën a mode virtuel bi sax ngay gën a mën a organiser voilà mais gàmmu jëppal bi bàyyi bi mu koy tànn lu tax ñu jëloon choix wu Dakar ak jëppal bañ ko def gàmmu national mm-hmm. taamu Dakar bi mm-hmm. lan la woon waaw gàmmu gi gàmmu national la waaye dañ ko jagleel Dakar hmm. bu njëkk jëppale en 63 bi ko bàyyi di créer mag ñi nekkoon Dakar ñoo ne woon dëgg-dëgg bàyyi bëgg na ñu nga wut nga wutal ñu jotaay fii ci Dakar hmm. boobu dañoo néewoon Maulana Cheikh Ibrahima di xalaat di xalaat waaye ku xam baay ak mbëggeelam ci yonent yàlla Muhammad salaam moom nee na bëgg naa ko laqad ahbabtuhu hatta araniya kuntu mhm. bëgg naa yonent yàlla Muhammad salaam ba na ngay gis ne man sama lépp lépp yonent yàlla Muhammad salaam mhm. mu ne kon du ma leen tànnal man ngeen defal ma nga may ngeen may defal ziar mhm. wala ngeen def yéen xam lan laa leen tànnal mooy judd yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam ci weeru tubaab bi muy 20 avril mu ne dinaa leen tànnal 20 avril ngeen def ko gàmmu moom ci boppam moo déplacé wu Kaolack ñëw toog ci tànt bi ubbi gàmm gi ba pare nag doogu a duggaat nag ci biir bàyyi benn euh, taalibeem di mbokkam moom Maulana Cheikh Ibrahima moo ubbi gàmmu googu 63 mm-hmm. bi mu gi pare bi mu ubbee gàmmu gi nag mu bàyyi ko taalibeem bi nga xam ne mbokkam la muy Cheikh Oumar Fati Diallo ñas moom moo continuer gàmm gi mm-hmm. boobu nag mooy continuer ba léegi ndax bàyyi dafa gis na ne dakaar ñëpp fa lañ daje mm-hmm. benn plate tournante bu mag la àdduna bi yëpp dañ fiy daje waxatuma nag Sénégal yëpp su boobaa nag war nañ leen am lu ñu leen jàngal mu des seen bopp yi événement bi nga xam dëgg-dëgg dinañ leen mën a may ñu am référence ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam moo tax mu tànnal ko waa Dakar depuis boobu ba léegi nag mag ñi fi nekkoon di ko continuer ba tey ñun boo xoolee 63 59e édition ñun moo ñu mag waaye ñun ba tey ñu ñëw di ko continuer looloo tax nag mu am su te yaakaar na xëy na média bi moo xawoon a lii lii rek mais ñëpp bu bës boobu jotoon nit ñi dañuy jóge Kaolack jóge fu nekk am na ñuy jóge ba Mauritanie kon gàmmu international waaye dañ ko jagleel Dakar kon loolu moo doon lan ngeen ciy jublu parce que da jël feem yees parce que da ne mag ñi ñoo ko sumboon mm-hmm. mm-hmm. cinquante neuf ans ku ko am jege nga soixante ans mm-hmm. jëm nañu mag mais dañoo gis ni dafa am benn rajeunissement bu am boo xoolee ci ñi nga àndal sax ba ci ñoom jim ak ñoom ñëpp euh, euh, lu tax ngeen taamu nii léegi ndaw ñi na mag ñi def na seen wàll mais na leen ndaw ñi aw da ngeen ci jublu ni mbir mi waratul yam rek ci loo xam ne seen biir mais dafa war a gën a yaatu a apporter yokk ci dara parce que yokkul aussi aussi tam yokk effectivement bon li ñu bëgg a yokk mooy dëgg-dëgg nit ñi gën a xam njàngalem yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam fi ko mag ñi bàyyi woon dañ ko bëgg avance mu gën a tey jii mën naa wax ne benn yokk bi nga xam ne rek même bu fekkante ne lu tuuti la mais lu am ré lu am solo la yéen ñi fi toog plateau yëpp ngeen tey jii xam ngeen ne juddu yonent yàlla Muhammad si 20 avril keneen tamit kuy déglu lu gën a bëri ci weeru ga dinañ xam ne ne juddu bi lii la kon hmm. loolu benn yokk la mooy lan mooy ñu ngi gën a puus mbir mi ci di ko médiatiser. waaw waaw loolu nag laa leen bëggoon a wax da ngeen a war a yokk di ko médiatiser nit ñi di xam waxtaan yi di bari. ngeen di ñaaxaat nit ñi ak jeunesse bi ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci tànk boobu lañ nekk. Mhm. moo tey ñu tànn sax partenariat bu mel ni bu doy ne Walfadjri nga xam ne mhm. adduna bi dinañ ko déglu. Mhm. dëgg-dëgg bu fi jaaree. déwén du ñu toog fi di wax ne le vingt avril lii la parce que ñëpp danañ xam ne ne dëgg dëgg pierre bi ñu bëgg a teg nag liggéey bi mooy liggéey boo gis yonent sallallahu alayhi wa sallam dafa ne buurika fi bi yal yàlla def barke ci ndaw ñi ndax am na lu ndaw ñi mën mag ñi mënuñu ko moo tax nag ci suñu sëriñ ki nga xam ne mooy président Ansaarudin bu national mun Cheikh mun Hamid Ibrahima Niass bi mu ñëwee dafa gën a yaatal mbir mi ndaw ñi mhm. ñu jox leen ci fédération ci ruq yëpp ku nekk jiite fa nga xam ne dëgg-dëgg mën a jege ndaw ñi mën leen dimbali ba nga xam ne dëgg-dëgg lii sànq ndaw ñi ñu mën leen ci génnee mhm. te ndaw nag wax ak ndaw bu wax ak ndaw moo gën a mën a gaaw dugg ci nit ki ak mag ñëw di wax ak ndaw mm-hmm. bàyyi dafa doon wax ne ku nekk na wax ak ki mu tollool jaaykat bi na wax ak jaaykat bi bu ko woowee ci yàlla rek dana xam ne ne moom kii li mu mën ci di jaay waaye boole kook yàlla di jaamu yàlla kon moom war na koo mën mm-hmm. waaye bu fekkente ne oustaz la mu ñëw di may wax ak saa njóogu ma koy ne defal ni defal ni suba dana yow da yow bi nga juddoo ba léegi ci nga nekk mu ne baykat bi na wax ak baykat bi sàmmkat bi na wax ak sàmm ndaw ñi nañ wax ak ndaw ñi mm-hmm. su boobaa rek bàyyi daf ko doon def bu àndoon Oustaz Barham Diop bu ñu demee ci àdduna bi yëpp bu ñu demee lu mel ni Égypte bu gisee ne ci conférence yi ndaw yee fa ëpp day teg Oustaz Barham Diop mu ne ko waxal ak ñoom Mm-hmm. communication communication dafa am solo moo tax nag ndaw ñi jëw jël affaire bi. Eh, imam waxtu wi jeex na na la bàyyi nga wéyal. Mm-hmm. Ah, léegi ñu bàyyi la sa message rek du ñàkk am na loo bëgg a wax te kenn mm-hmm. laajuloo ko. nga samu fàttali ban waxtu la suba incha allah ci Walfadjri waaw eh, kon ñu ngi gërëm ñëpp di ñaanal yàlla ñëpp waaye di leen fàttali ne. gàmmu gi suba la mu tolloog 20 avril. ci ci ci fii ci wal fajiri lay dawee mun naa wax ne fii ci wal fajiri à partir de 22 heures à partir de 22 heures mhm. képp ki nga xam ne yaa ngi koy dégg na nga toog préparé ko te dégg nañ la servir li nga xam ne dëgg-dëgg doo bouger te da nga ko jëriñoo leneen li ci des mooy ñu ngi woo tamit mbokk taalibe fu ñu mën a nekk ku nekk tamit def participation ci gàmmu gi xam ne yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam lépp loo ko defal rek sa bopp nga ko defal mhm. kon ñu ngi leen kan nga àndal maa ngi àndaloon ak sama président mhm. coordination bi xam nga mhm. wax naa ko si coordination bi dafa am président quatre départements yi mooy Ali Lopez moo toog ni sol lu weex li di ndaanaan maa ngi ànd ak Samba Thiam moom moo nekk Pikine maa ngi ànd ak Jim d' accord Jim Jim Mamadou Diouf mooy sama secrétaire ba pare mooy secrétaire d' accord merci beaucoup ñu koy ñaanal yàlla ñu ngi leen di ñaanal yàlla asalaamaaleykum wa rahmatulah jërëjëf ajaratu ñu noonu imam Moussa démbale mhm. euh, doon rek euh, coordonnateur département bu géej waaye euh, Jamiyatu Ansaaru Diin ëllëg incha allah ci Walfadjri rek 20 avril le 22h mhm. ñu fas rek maggal sunu sang rasulillah man nag le 21 laa judd mhm. ah le 21 le yaa ngi ci <laughs> waaw te Omar bun Xattaab ak yonent bi eh, eh. moom Aboubacar moo dox ci diggante bi kon kon macha allah daal bu subaa incha allah wal fajri daal mm-hmm. dañuy gàmm vingt-deux heures jotee nag ñëpp qualifié ñu ngi ciy nuyu bu baax Baba Lamine sunu papa jooju moom it ñu koy ziar sunu xarit la di ci ziar kullu taalibi Baye ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax ay Aïcha dañuy daal di dem régie jël tampon xurdab Sanjoogu Mbay nga ànd ak ganam